aywa euh, yéenekaay yi ak lañu xëyee Cheikh dañ koy dooree ak l'observateur mu mel ne euh, foo yaa ngi gis gone gi Camara lamin ak sunu gaynde yi lamin yàlla na ko yàlla lafal cat. dama bàyyi Sadio. waaw ah. dama bëgg laaj dama bàyyi Sadio. <laughs> damay jëlee riwaari mel bi laa jëloon. <laughs> damay def comme ñëpp non bu ko bàyyi bul bàyyi saa Sadio. bëgg naa ñëpp mais damay eh, jëlee. Eh. tey Lamine laa ci yàlla na leen yàlla lafal cat ñoom ñëpp. amiin yaa rabbi Lamine Camara yi nga xam ne itam def na jaloore ci match yi nga xam ne moom moo doxoon ci diggante réew bu Sénégal ak itam Gambie bi nga xam ne daal dina ko dugal l'observateur euh, tënk ne ab xale la bu ñu sol yàpp mag ndax itam doxalin wi nga xam ne euh, mi ngi koy euh, doxalee yaram bi daanaka nu ko neex la koy def di dóor li nga xam ne moom moo di bal bi l'observateur daal nay xaatim lu ni mel l'observateur tam dikkaat ginnaaw li nga xam ne moom moo di Euh, euh, victoire bi yenn ci ay prisonniers ca mag bu mbuur daal di nañuy rëcc lu ni mel euh, mënees koo liir foofe kaan bi itam ak jaloorey gaynde yi mu mel ni itam un bon score la rek daal di dippee lu ni mel ñu taxaw ci leneen lu ñeel li nga xam ne moom moo di langue politique bi fii ci réew bu Sénégal défaut de déclaration bu politique général Amadou Ba jàppal ne nag ab élimaanu jëwriñ daanaka boo xamante ni mënees nañ ne dafa lajj l'observateur moom moo ko daal di xaatim lu ñeel itam accusation bu trafic bu visa kenn ci ñoo xamante ni itam euh, complice la ak Lac 2 ci la jamono itam Lac de Guiers 2 maanaam euh, kenn euh, gisee tu ko lu soxal itam page sept la mu xaatim mu di nag ginnaaw ñetti at yoo xamante ni amaluñu ko Miss Sénégal dina dikkaat fii ci réew mi yenn ci ay innovation maanaam ay coppite yoo xamante ni. Mhm. def nañu ko ci wàll wi ginnaaw l'observateur bi beneen ab yéenekaay yi. saa ay waay Sadio Lamine waay Sadio Lamine ñaari jour fat yi. entretien l'homme du clean sheet. oui yee ah, <laughs> euh, donc euh, des lions ñaari gaynde yi sa ñaari xarit yi. Mm-hmm. ñoom la ñu rek euh, di def ci nataal bu enquête ngi ñii Euh, di euh, reetaan jubilé la ñu euh, wane foofee. aywa une très belle image Sadio moo boot gune yi. waaw aywa le quotidien. le quotidien dikkaat bu baax a baax ci mbir mile nga xam ne boobu ak léegi jur na coow lu rëy fii ci réew bu Sénégal mu ñeel li nga xam ne itam moom moo di double nationalité bi ñu ne Karim Meïssa Wade da koo am un cas devant le sept charges lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne moom moo di le quotidien ginnaaw le quotidien. aywa le soleil ba tey ak sunu gaynde yi. de CAN des jël le soleil national ginnaaw bi tam ñetti bal ci dara ñu dóor suñu euh, euh, mbokku Gambie yi. aywa Libé. Libération dikkaat ba tey ci mépris total envers les décisions euh, rendues par l'autorité de régulation de la communication publique. Vinci voilà voilà exactement. Mhm. mu mel ni nag régulation voilà de la commande publique Vinci déchire trois décisions de l'ARCOP lu nu mel mënees koo lire ci li nga xam ne moom moo di libération libération daal di koy tënk ci lu soxal ñeenti. poñ faati daañu dikkaat ci ñaareelu pàcc wi gën koo faram-fàcceel ñuy teewlu. la tribune la tribune dikkaat ba tey coow li nga xam ne moom moo juddu ci euh, fichier bi ginnaaw itam segg bi nga xam ne euh, conseil euh, constitutionnel daal dina koy segg ñenn ci ñu bëggoon a samp seen ak nënd ci élection présidentielle atum 2024 ñoom ñooñu itam ci la jamono ñoom ñoo mànkoo doon wenn say jàppal lu toll ci 900000 électeurs introuvables jëm ci li nga xam ne moom moo di fichier bi ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany bokk na Euh, loolee ginnaaw euh, turbine beneen ab yéenekaay euh, CAN 2023 ak itam gaynde yi ñetti bal ci dara yi nga xam ne door nañu ko suñu mbokku gambien yi les échos les di kat ba tey ci lépp lu soxal mbirum wari jàppal ne procès bu Kabiru Mbodj ak itam ex associé yi nag daal nañ koy programmer ci li nga xam ne moom moo di audience spéciale en appel le sept février prochain maanaam juróom-ñaari fan ci weeru février wi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal candidat yi nga xam ne itam fas yéene nañ ñoo rek daal di euh, doxal ñaawlu ci loo xamante ni itam euh, conseil constitutionnel daal dina koy doxalee kalaame nañu euh, njiit bu réew bu Sénégal ca UE Fatick. aywa bés bi le jour. bés bi le jour di kat ba tey ak itam seen ak doxalin ñoom ñi féete ci la jamono ñu te ñu rek daal di leen téye délégation ba ñu def ngir rek daal di boole gouvernement bu Sénégal doxalinam ci li nga xam ne moom moo di segg seggaat gi. aywa Vox Pop. Vox Pop di ba tey ak gaynde Sénégal yi nañu duggee ci li nga xam ne moom moo di euh, CAN bi euh, champion d'Afrique yi la daal di ñuy làbbali ci seen ak match bu njëkk. aywa euh, source A. source A dikkaat bu baax a baax ak itam gaynde yi mi ngi ci suuf moom Lamine Camara daal di rek daw la faute à deux Lionceaux lu ni mel mi ngi ci page quatre jàpp cinq bu li nga xam ne moom moo di source A ginnaaw source A beneen ab yéenekaay. le ak Pape Gueye. Pape ma nga ca biir lu soxal wàllu voilà exactement donc wàllu tàggat yaram ak gaynde yi Sénégal yi nañu rek def ñi nga xam ne ñoom ñoo di scorpion yi daal di leen làbbali bu baax a baax. aywa Sud Quotidien Sud Quotidien ak itam match wi ñetti bal ci dara lion lions font le job maanaam liggéey ba war lépp daal nañ koy euh, def. aywa euh, record. record CAN 2023 Sénégal Gambie ñetti bal euh, ci dara les mbokka pardon maanaam suñu ay mbokk lañ donte donc dóor nañu leen ñetti bal ci dara nekk ñàkkul. wala boog terewul ñu nekk li nga xam ne moom moo di euh, suñu ay euh, frère ak itam sœur Kalidou Koulibaly itam waxtaanee na li nga xam ne moom moo di a euh, match wi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ni ki aljuma lay doon lu soxal itam Alioune Cissé di sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal l'humilité l'ADN de cette équipe maanaam Euh, maanaam ku ci nekk itam da nga wàccee sa bopp ngir rek nga mën a amal li nga xam ne euh, moom moo di euh, boobule match ak itam déggoo ci groupe bi. aywa stade yéen kaay. stade yéen ak itam gaynde yi Sénégal yi nañu duggee ci li nga xam ne moom moo di kaan wi daanaka ñëpp ànd nañu daal di koy rafetlu xarañte bi nga xam ne itam daal nañ koy wane Crépin ma nga ca ginnaaw Lamine Camara ak Mané Niancho. ñu jeexalee ak sunu lamb sunu lamb ak li nga xam ne mi ngi xeeñ mu di Balla Gaye ak itam Tapha Tine la revanche presque ficelée nag euh, li nga xam ne euh, moom moo di Albourakh Events mi ngi ci dox ay jéego tous tous euh, Sa Thiès ak itam Eumeu Sène ñu ngi si loole itam gis nga janoo wi nga xam ne daal nañ koy amal Sa Thiès ma nga ca digg ba bala ki nga xam ne moom moo di Eumeu ma nga ca wet ga leneen itam loo xamante ni sunu làmb daal na koy tënk ndaa ñëwaat ci ñaareelu pàcc wi lal la ñuy waxtaanee. xanaa la grande actualité. muy sunu gaynde le soleil wala record. ñu dem record aywa les mbokk